badal auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki internet yi ni seetaan ci biir réew bitim réew ñoo ngi nuyu ñëpp di waleen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu nga dégg suñu kàddu nag tey jii ñoo ngi fi ci Badar Gueye euh, dëkkub Alaaji sëriñ Gueye Badar ak maam yi njëkk yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ba ak agsi moom te mu mujjee puso bi réerut dëgg yàlla di dëkk boo xam ne dëkkub lislaam la dëkkub murid la waaye dëkkub julli la dëkkub taalibe la Alaaji Serigne Gueye nekkoon fi nekk lu rafet woo xam ne kenn ko rafetlu na ko ci ak njabootam ak dundal tund wi ak dundal alxuraan ak xasida boo gisee dëkk bi ni mu demee nga xam ne ah dëkk bi am na ñaan waaye dëkk bi am na toppatoo ndax ay at ci ginnaaw boo dikkee ci dëkk bi daa doo fi gis courant ndox mi deewul noonu waaye tubaarkàlla lépp fi ne nii mi ngi mi ngi dëkk bi waaye loolu lépp mbaaxu Alaaji Serigne Gueye moo ko def waaye nag ah, baax baax na lool waaye dem bàyyi ñu baax baax na ndax Serigne Cheikhouna Gueye mi nga xam ne mooy xalifu alaaji Serigne Gueye Badar ba bàyyam demee àjjana ak léegi daa balam doon def lépp ñëw toog Badar di fi dundal alxuraan ak xasida ak daara yi ak jumaa yi jàkkee julli yi lépp euh, Serigne naa Gueye di ko dundal ànd ko rakkam baax Serigne Moustapha Gueye ak ñu mel ñoom Serigne Fallou Cheikh Abdoulaat Serigne Jili bawuñ kenn ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ànd bu rafet boo xam ne dañoo ànd àndum nawle waaye ànd àndum gor muy loo xam ne loo am solo la seen mag ju baax yi sunu ginnaaw soxna Ami nga xam ne kenn bu doon góor ba mu ne dana jigéen nit góor képp lay jëf ndax baaxam ak njàmbaaram ak bëggam lu baax ak nangoo son ci doomu aadama bis bi nag ñor leen lool boobu gàmm xasee ñëw bu agsee luñ do luñ fu ñu nekkoon ñibbisi nañ luñ jàppoon bàyyi nañ ko ndax bis bii bis bii nag di bis guddi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di ngi naan ko ngéntali muy bis boo xam ne gileemu tukkal la lépp attan na ko lu ci waay bëgg mën na ko cee ñaan ndax Serigne Touba dana yóbbu dana def lépp Mouhamed dana def lépp ndax bis bi bisu Mouhamed la waaye bisu julli ji foo dem tey Ndiassane ña ngi koy dundal boo demee Léona Niassène tey ña ngi koy dundal waaye boo dikkee fi Badaat Gueye ñu ngi koy dundal dundal googu nag dafa départ ñu alaaji Serigne Gueye mi nga xam ne mooy waajur soxna Ami Gueye mi sama ginnaaw di jàmbaar joo xam ne lu baax rek ko ñor Serigne rek ko bu jëf ci rëyee xamal ne soxna Ami Gueye ca biir waaye boo wax ci baree xamal ne nekku ca kon nag ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba képp ku ñëw ci dëkk bii ak ni ngay delloo yàlla na Serigne ay xéewal defal ay tawféex di xam ñoo yor organisation bi soxna Bousso Mboub bi nga xam ne moo jiite organisation ak ñi mu àndal mel ñoom Assane Mbaye Thiam ñoom Ndeye Guèye Ramatulaay ànd ak ñoom ñëpp ñu taxaw waaj ñu taxawaay bu am solo boo xam ne gis ngeen xeeti xéwal yi fi nekk yàqu ci dara at mu jot day gën a doy day gën a neex day gën a yaatu li waral loolu na mooy soxna Ami Guèye mi ci ginnaaw nga xam ne mooy jiite yëf lu ko waay laaj bis bi da ko ci def di sant suñ site bi ñu jàkkaar lool xam ne daawit ñoom ànd ñoom nii di ñaan ci barke Serigne Touba ku ñëw ci bis bi yàlla nga lu waay ñaan yàlla na yàlla nam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw munu sant yàlla boroom bi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant seexul xadim Cheikh Ahmad Bamba xaadimal Mustafa di ñaanal bu baax sëriñ Muntaqa Mbàkke xalifa général de kullu murit sun borom gën a fanam te may ko ak dolli ko sàmm moom mboolem njaboot seexul xadim gépp di ziyaare bu baax boroom ëtt bi ñu nekk dëkk muy Serigne Mouhamadou Moustapha waaye di siyaar bu baax Serigne Cheikhouna Gueye mi nga xam ne tey mooy xalifa alxaaji Serigne Gueye Badar ak euh, magam ju tedd ji di ajaratu Ami Gueye ak mboolem njabootu alxaaji sëriñ gépp ñu toog ak jàmbaar joo xam ni ku nu miin ci ëttub alxaaji Serigne Gueye waaye ku miin ci digganteem ak alxaaji Serigne Gueye waaye ku ci digganteem ak njabootu alxaaji Serigne Gueye ci jëmb ju yàlla baaxal di jàmbaar joo xam sëriñ Tuubaa ko booleeg alaaj sëriñ alaaj sëriñ jàppal ko bopp mu jàppal ko boppam waaye bi mu demee na ko alaaj sëriñ gi jàppe woon daa jàppaat ak njabootam lu raw loola muy sëriñ Jaxate mi nga xam ni ku miin alxaaji sëriñ Gueye wala nga xam alxaaji sëriñ Gueye wala nga xam dara ci alxaaji sëriñ Gueye boo ko ne jàkk sam xel dina dem ci alxaaji sëriñ Gueye ndax damay faral di wax nit ku ne mën naa may lu ne waaye maye si jëm moom ci alxaaji sëriñ rek laa ko gis ku gis digganteem ak Jaxate xam ni euh, wàllu mën na lu ne kon nag bu nu toogee moom ci bis bii nga xam ne mooy màggalug badar di gàmmug badar di bis bi nga xam ci la ñuy fàttali ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam te lépp lu ci mel tey alaaji sëñ Guèye jàmbaar jooju te ci suye rôle bu rëy kon suñu toogee ak suñ jaxate dañ koy laaj ci digganteem ak alaaji sëñ Guèye ak digganteem ak gàmm gi kon suñ jaxate alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu ala rasulillahi seydina muhammad nabi lu muy wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahuma ya karamu salli ala seydina cheikhina wa seydatina wa mawlana muhammadin murtada wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ah, laaj nga ma lu ma sawar laaj nga ma loo xam ni day day yomb ci man pour ma wax ci ndax it nit li mu dund ci xolam ba laabal ko ba sellal ko ba suñu borom nangu ko bu doxee jëm ca sax day egg bu waxee jëm ca day rafet sëñ Gueye nit gën na maa yàgg ak moom am nañu ko xam nag waaye xam ak xàmme bokkut sama borom bi dimbalee te def ko noonu moom ma dimbalee ci jëmm ma xàmmee ko nungu ni te ñañu ber la bokk nungu ni te ñun yónni la bokk ba mu xamee la boppam rek la jël yitteem yépp fabu jëm ca te gis ku ñëw tey xam ne egg na ca ndax bàyyi na fa loo xam ne bisu tey bii noonu lañ noon lañ koy noonu lañ koy taree la ci àjjana jóg nag jëm ci ku ñu nungul ak jëf ju ñu nungu yiw ga ca ne kenn xamu ko sëñ Gueye yitte moo rëy nañu baax ni joxewul woon yitte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu baax ñu yitte joxe ko Serigne Touba Serigne Touba sëñ Gueye su ma doon xool ni jamono bi muy jox loolu Serigne Touba sax bu fekkoon ñële romb leen. kàddoom jëfam dundam lépp Cheikhul Khadim lekk na ko jullit ak la waaye murid saadix la ndax kenn ko ci nekk am nga koy xool ca la nga bëgg man nag yàlla teel na ma dimbali ci jëmm am daan waxtaan bu baax nag mu teel maa xamal sama bopp teel maa xamal li ma war toog nañ miraaran mu ni ma boo guddee fan di nga xam ne ñi sama borom dimbali ci nga bokk gane si na ma Grand Yoff nekk sama kër trois heures ci ngoon ba 5 heures du matin bi ma xëyee dem këram dani ma mbooloo moom ak yow bokku leen na jël sa pas-pas nekk ci li nga xam ne moom la say maam kon kooku am na lu ma yàlla booleek moom muy ko xam ni koo gis mu takkook moom bu dee am na toq dina am lu ma jëlee ci boromam kon njaboot tamit tàmbalee ko sëñ Cheikhouna Guèye mi nga xam ne mooy xalifa bi ak soxna Ami Guèye teel nañu xam ni leen seen bàyyi faggul teel nañu xam ne leen seen bàyyi fegal moo waral bis bi ku ñëw tey xam ni jàmbaar ji liggéey na kon bis bi mooy bis yi ñu nungu yëpp a yem ndax am na bis yoo xam ni ak jëf yoo xam ni li ñu wax naa inna yawmal fasli kaana miqaatan yawma yanfaxu fi suuri fatahtoona afwaajan am na bis yoo xam dañ leen yëkkati ñu ci ca kaw kaaba ga bu ñuy uf buftu bi dañ koy yëkkati jumaa yi Sëñ Tuubaa ji dañ ko yëkkati bàmmeel yi yàlla gërëm dañ leen di yëkkati jëf yàlla gërëm dañ di yëkkati bis bi ca la bokk kon nag fa ñëpp dugal seen bis ba yàlla nangu ko sëñ gi dugal na fa bisam kon bis bi bisum yërmande la bisum tawféex la bisum cant la loolu rek la am lu ma ci kàddu li ci des nag buñ ko jot gi mayee la nga xam ne moom la doon dundal sëñ Tuubaa lu ñu ci mën a wax dinañ ko wax ñu ngi leen di sant bu baax yow jëmm ju baax nga jamono bu ne danaa la fekk ci njabootu sëñ Guèye mais ku dégg li ngay wax ci askan wi xam ne maîtriser nga ko xam nga ko yàlla na yàlla fay barkeb Cheikhul Khadim kontaan nañ baax jërëjëf jërëjëf sëñ Tuubaa mm-hmm. ah, dafa jaxasoo Euh, taalibe Sëñ Tuubaa waaye dafa jaxasoo jullit yëpp ku doon la laaj nag diggante alxaaji sëriñ ak jullit yi nan la demee waaw xam nga Sëriñ Tuubaa moom bu la matale rek matal na la bu la matali ci lépp ngay mat ndax diggante moom jullit yi li ñuy nawee jullit mooy makaarimal axlaax te ku ne xam ne ni sëñ nga yoroon na makaarimal axlaax nawewuñ ko jullit nawewuñ ko wilaaya nawewuñ ko maqaamu jikko ju rafet ku mu jaxasool rek bëgg nga jikkoom te ñi nga xam ni sëñ Abdou Lahad na leen sëñ Gueye ci la bokk sëñ Gueye nee na bi sëñ Abdou Lahad di dem mu jàkkaarloog moom mi ngi ko tàggoo Mafatul Bichri ak moyen bu nee na bu yëg na sëñ Abdou Lahad day dem kon kooku koo xool sëñ Abdou Lahad xool sëñ Gueye xool sëñ Mountakha xool ñoom sëñ Moussa Saliou di xam ne ci ñi sëñ Abdou Lahad nampatal ci la bokk amul doomi Serigne Touba ju mu toogalul bi ci mujj Serigne Salim Mbacké gàmm Badar jot na mu toog ak doomi Serigne sa doomi Serigne Touba ne ko sama gàmm gi ci Badar laa bëgg mu doon mbaawum biir ak biti ndax doole doomi borom Touba mën naa ci def lu rombum taw mais ki am sañ-sañ boobu am yëg-yëg boobu xam na ki mu koy waxal waaye ki mu koy xam na ki koy wax mu doon toog ak doomi Serigne Touba ne ko ña ngay ña ña ña ngay sàkkum ndox ca dëkk ba waaye loolu du wàcc ndox mi sama gàmm gi ci Badar mooy mooy wàcc ndox mi. doole doomi borom tubaab mën naa ci def lu romb taw mais badar googu ba ñëwee la def na ko kon kooku lambatuwul dañ ko lambal ah xëccul dañ ko ñoddil suñ koy daal li ma mën a wax ci moom foo ko boole bokkoon na ci nguur gi bokkoon na ci nguur gi yoonu murit nag inspecteur la ci woon suñ tubaab mayoon na ci yoon wi def ak dindi doon na man nettali benn bis mun ne dafa romb benn tableau benn waaye xam nga docteur la bind ci tableau min si yi kulida nee na mu chauffeur mu ne chauffeur bi arrière chauffeur bi arrière mu ni kii kii kii daa bind loo ana ana ki bind lii ñun ko borom borom dispensaire bi dama ko bind mu waaxu dem ba gisoo ne ko table ba yaa ko fa def mu ne ko waaw mu ne ko lu tax nga bind ci yooyaay min ci fayu ko di daa mu ne ko damay faj mu ne ko da koy dindi loolu moomoo ko ki ko bind te sañ ko du yow mi nañ ko dindi léegi bala maa dem loolu sañ sañ koy def kon xamoon na boppam sëñ gee daal li ma wax ci moom wax dëgg yàlla xamoon na boppam diggante mu sëriñ bi dox na ko njabootam waa kër Serigne Touba yëpp nungul nañ ni kii Murid Saadix la Murid Saadix na fa la mbir mi yem asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf jazakumullahu xayran eh, sang bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom guddal sa fan eh, ba yéene yëpp àgg ndax lii wax dëgg yàlla ki ko ki ko nàmp moom rek moo ko mën a tàqamte ko yow su diggante ak Alaaji Sëriñ loolu ci wax dañ koy gën a jariñoo ndax loolu dañuy xam ni loolu laal baaram la kon dañ lay ñaanal suñu borom guddal sa fan doolu li wér gi doolu la sàmb yéene yëpp ak ngay jëmm ju gore nag di jëmm ju gore di jëmm ju baax di ku neex a defal ndax waxtu wu nekk dama la koy wax man su ma la gisee ci badar wala ma gis la ci njabootu alaaj si dama xool day sedd ndax damay xam ne eh, la nga jaayantoo nag alaaj si ngee nan naxu la waaye naxoo kon yàlla yàlla guddal sa ban salaamaaleykum maddalana al imaana والإسلام وأحسن الإحسان باقٍ subhaanahu أعطيت lil wajal من به المنى أدا حب الله حبا